juróom-ñaari waxtu toftala ci ne fanweeri simili mbégte la am saa su ne di janoog yéen xibaaru diggu bëccëg gi euh, xibaaru marax yi baal ma gannaaw ba nu jaajëfalee Chérif Diop ak ñi mu bokkaloon plateau bi yooyu xibaar yi ca gën a fës euh, di juróom-ñaari doomu aadama yu ñakk seen bakkan ñaar ñene ca guddi gu bët sëtagut loolu nag moo tukkee ci accident bi amoon ci démb ci dibeer ji ca amitié ñu ne ab woto 4-4 bi soxna soosu doon dawal njabootuk muslim bay sax ne ñu daal càmbar gi lu ci maanaam euh, juróom benn yóbbu nañu leen euh, ca suufas Touba Mbàkke a ca des euh, beneen néew ba ñu ne Guinée Bissau lañu ko yóbbu beneen ponk mbokk yi muy ñàkkam ndox mi ñu nemmeeku fii ci Ndakaaru ak li ko wër bokk na ca la ko waral ab liggéey bu ab bërëb doon def mu aju ci ay autopont ñu ne liggéey boobu nag moo indi yàqu-yàqu ci benn ci tuyau yu SDE moo ne day dañu ne woon sax dinañ jël bépp matukaay ba jafe-jafe ndox duñu ko ko am loolu nag bërëbu euh, liggéeyukaay boobu moo xamle lu ni mel ne ñu nag duñ ca yem waaye lépp lu aju nag ci jàppale euh, ci yàqu-yàqu yooyu daañu ci def seen kem kattan euh, ca njeexintalu xibaar yi daañu dara las su benn ci bu bokk na ca la ñuy waxtaanee muy lu aju nag ci campagne bi ak journal bi xibaar yooye daañ ci ñëw dem ci Ndakaaru Thiès Mbour Bambey ba Kaolack topp fa sunu naataangoo yu ñu toppal candidat yi ñoom candidat yooyu lee parti bu ne ak na nga ko dundee ba subtay bi ku ci mel ne Serigne Mansour Sy Djamil euh, moom dem na ca waa PUR euh, dinañ dem itam seeti borom xam-xam yi seen màcc jëm ci wàllu yi ku ci mel ni euh, Valdiodio njaay mu ànd ñu ci ay leeral ci yenn ci ay ponk ay rubrique yu bees itam naka noonu mbokk yi ponk yaa ngoog ñeentaax yi lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. jaajëfal bu baax a baax euh, Chérif Diop ak euh, Souleymane Niang ak ñi ñu doon euh, dalal ci seen waxtaan ak programme bu bees bu télévision Futurs média aju nag ci campagne présidentielle boobee xibaar yi marax yi dañ koy doore ak tiis yi nga xam ne démb daanaka moom la ñu yendoo fii ci réew mi rawatina ci Ndakaaru ndax juróom ñaari doomu aadama ne ñu mujjee ñàkk seen bakkan ñaar ñe ne ca guddi gu bët setagut loolu tukkee ci accident bi amoon ca ami amitié niki démb ci dibeer ji ab woto 4-4 la benn soxna doon dawal moom soxna Muslim Mbay njaboot ga sax nag ni du xelu moom moo indi jéeye ja xanaa kay ndogal ak jafe-jafe ci wàllum woto bi juróom-benn ya faatu yóbbu nañu leen ca sëgi Touba Mbàkke ka ca des ñu ne ab néewam dinañ ko yóbbu ca Guinée Bissau Cheikh Diop moo moon seeti njaboot gi mu nettali ñu la fa xew ña nga dëkk ca gox bu ñu naan HLM 5. xoolee li nga xam ne moom moo di xar kanam yi nga ci gis Muslim Mbaye doon soxna si nga xam ne rek moom moo def accident bu doy waar bi accident bi nga xam ne métti na lool ngir rek ñu daal di tourner page bi. dafa dama yeewu ndox amul HLM mu ne yaayam yaay bàyyil ma rootali la sama kër parce que Mermoz am na ndox ma rootali la yóbbaale sa sëti sangaale leen sama kër àndi leen bi mu defee loolu jël leen dugal ci oto bi yóbbu leen sàng leen ba pare di wàññeeku ci la yàlla suñu borom indi ndogalam. bokk ci famille bu Muslim Mbay di ñaawlu bu baax yenn ci ay xibaar yoo xamante ni ñu ngi koy àddu te xam ni boobu leen daamaar da doon daw ak vitesse. excès de vitesse mënul am ci agglomération. musli ku ko xam fa muy liggéeyee wala nga xam ko fii ci koñ bi mu dëkk wala nga xam ko ci njaboot ki mu bokk du nit kuy wax baatam di jóg ci kaw wala kuy def ci rajax rajax donc c'est impossible loolu amul. donc li am mooy défaillance technique moo am moom la nit ñi war a xam moom daal moom moo ko jënd zéro kilomètre. donc oto bu bees la comme ni ñu ne wax naan oto bu màgget oto bu am trente non oto bu bees zéro kilomètre la. mu nekk ab métit bu kenn dul fàtte ndax niki daaw ci waxtu wi. moom musli daal dina ñàkk borom këram. ku gëm yàlla la preuve boo la xool boo xoolee image yi ci internet bi kaamil alxuraan bi mi ngi ci oto mu ngi ci kanam otoom ku yiw maanaam ku dal la ku gëm yàlla it man. metti na metti na wax dëgg yàlla ndax euh, perte sa boroom kër ça fait juste un nga ñëwaat perti sa ñaari doom yi nga xam ne moom ñaari doom yooyu rek la am ci àddunaam ah metti na waaye tamit lañ jël lépp delloo ko ci yàlla suñu borom. juróom ñaari doomu aadama daal di ñàkk seen bakken ñaar ci ñoom. nekk ci état bu doywaar ñoom ñi le sol woon ci ab ndaamaar ba mu fees sur ndombre bi nga xam ne nemmeeku nañ ko fa doon lu métti lool famille bi le juróom benn ci ñoom dinañ leen daal di jébbal seen borom niki mercredi bi kenn ki nañ ko daal di yóbbu ca Guinée Bissau Muslim mbay jamono yi moom ak jànkam ñu ngi ci hôpital bu Grand Yoff Muslim Mbaye moo ko euh, jànqam ba mu àndaloon ñu ngi ñaan borom bi fëgg seen bopp may ko xolum muñ waaye itam masawu njabootam euh, ci tiis woowu ko dal loolu nag itam tax na itam euh, télévision Futur Média samp ab laaj jëmale ko ci ku ñu naan Ibrahima Ndongo xam-xama màcc jëm ci wàllu dem ak dikk li ci laaju nag ci wàllum kaaraay ngay yoon ak woto yeeg nañ ca war a defee ndànk ay kàddoom Cheikh Diop ak Diafara Ba ñoo ko taataan ngir yéen. li ko wax. bi nga xamante ne mooy convention de Vienne bi lu code de wax bi nga xamante ne mooy la partie législative bi nga xamante ne mooy la loi de 2002 et le décret d'application de donc fàtte naa date yi mais daf ni place bu mën a nekk ci oto bi ci kanam ak ci ginnaaw place bu nekk benn nit a cay toog te place bu nekk daa war a am ceinture de sécurité. programmation boobu ndam dañ koy def ni boo duggee ci euh, grande voie yi wala autoroute yu ngand yi da nga koy programmer xam ne moom la ñu wax da nga oto bi dootu ko mais nag boo bëggee mu dañ booy laal frein rek muy bañ léegi nag bu fekkee da nga def erreur bu fekkee da nga def erreur fii dégg nga ñu oto bi noonu xale yi nekkoon ci biir dégg nga jiitu laal programmation boobu oto bi nga ñëw taal rek mu daal di départ di vërërërër xam loolu nooy def te xam loolu lu koy arrêté mooy loolu mooy indi jëye yu mel ni di am aussi. bu ñu jugee ci jëye boobu ñu wax ci beneen jafe-jafe bu askanu Ndakaar di dund ñàkkum ndox gis ngeen euh, fan yi ci télé bi askan wi ku ne gàddu sa di rooti ndox bokk na ca la ko waral euh, benn ci jumtukaay yi indi ndox mi fii ci Ndakaaru euh, moo toj loolu nag ñu ne la ko waral di ab liggéey boo xam ne dañu ko loon liggéey mu aju ci wàllu auto euh, auto auto pont ngeen baal ma ñi nga xam na nag ñoom ñoo yoroon liggéey boo bilee euh, di masawu askan wi ne ñu jël nañu bépp matukaay waaye lu aju ci defar bu ne dañ ci taxaw ba mu mat ka leen seeti woon di kumbaax matlo gannaaw ñàkkum ndox mi nga xam ne sonaloon na lool ñi yeewoo ci ndakaaru société bii di AGTS mi nga xam ne jàpp na ni lu di njàkk mooy njàkk di ñaawlu mbir Euh, ci guddi gi ñu doon liggéey altine jëm talaata bii paase euh, suñu équipe yi ba ñuy foore a 30 mètres de jëm 30 mètres de profondeur pour xam lan moo nekk ci suuf si pour mën a calculer fondation wu tabax bi pont bi pour mu dëgër bu baax donc ci la ñu laal benn tuyau SDE ba ñu yeggee si ñetti mètres ak genn wàll. ci yooyu la jafe-jafe société bi ba tey di jéggalu askan wi. masaw ñi nga xam ne ñëpp ñoo séq mbir mi commencé par waa SDE. ñi nga xam ni ñoom ñoo moom yore réseau boobu noonu lépp luy responsabilité AGTS ci cadre affaire bii nii dañ koy assumer ba mu mot sëkk waaw dañuy taxaw fi ñu war a taxaw ba mu mot sëkk li njëkk moom mooy def tout ba nit ñi amal ndox. lépp mu daal di koy teg ci ndoddam ba tax lépp lu aaju ci defaraat boobu la yoo société bi ne dina ko déggoo. lépp loo xam ni dépense la pour travaux de réparation yooyu yooyu ki nga xam ni moom la ñu wane ni de façon responsable moom moo ko moo am responsabilité bi moom moo koy assumer loolu moo tax ñun ñuy am ay assurance responsabilité civile parce que képp kuy liggéey ci projet yu mel nii d'ailleurs dañ la koy exiger. da ngay joxe sa assurance responsabilité civile ne bu ma defee dara loo xam ne kat yàqal na kenn pour que man ma am assureur boo xam dina ma jamono ji ndox maa ngi tàmbali ñëwaat yenn ci ay gox ci ndakaaru société bi fas yéene jël bépp matuwaay ngir daal di moyu lu mel nii bañ a yi Kumba Amath la ñu sant la gërëm la wax ci wàllu wér-gu-yaram ak jàngooro ji di defi jéye muy cancer ak euh, kuréel gi di liska xam ngeen leen ci xeex jàngoro yi cancer ñoom nag ne ñu euh, dañoo bëgg amal ab boo xam ne dañu koy amal ci at ngir fexe daal ba askan wi di gën a mën a teel a jóg teel a jóg saytu seen bopp ba lu ni mel bu amee euh, jafe-jafe ñu mën caa génn ca na mu waree euh, bëccëguk xeex jàngoroy cancer amaloon nañu ko fii ci Ndakaaru ci teewaayu Fatou bintu Konté la woon lépp lu jëm ci wàllum xeex li nga xam ne moom moo di cancer fii ci Sénégal LISCA di Ligue sénégalaise contre le cancer mu fas ni nag initier benn campagne boo xam ne ñetti at lay def jëm ci wàllum prévention diagnostic ak tamit nan la ñuy jàppale maladie ba ñu mun a xeex lii nga xam ne moom moo di cancer. campagne ñetti at la euh, LISCA moom xaarul campagne bi pour impliqué wu euh, campagne bi mooy ne nit ki fu mu munti doon ku mu munti doon fu mu mun ti nekk ci at ci dak ci Sénégal war nga dugal sa loxo. pour nga xam ne ne euh, euh, def ba nga xam ne ne cancer bi dina wàññeeku ci Sénégal mënuñu ne dina jeex mais dina wàññeeku te euh, dee bi wàññeeku ci Sénégal par le cancer. ci wàllum prévention boobu ministère de la santé dugal na fi ay vaccin benn bi njëkk bi mooy vaccin bi nga xam moom la ñuy njëkk def bi nga juddoo beneen bi nag di vaccin bi nga xam ne xale jigéen ñi lañ koy faral di defal bu ñu amee juróom-ñeenti at. vaccin contre l'hépatite B ku nekk xam na ne cancer du foie sonal na Sénégal ak dëkk yi ko wër. loolu dugal nañ ko ay at nii ñu jël vaccin bi nga xamante ne dañ ko wax euh, euh, contre le virus papilloma humain dañ ne bi ñu gestoo gis nañ ne lu ci gën a bëri day joxe cancer du col ñu ne nañ ko attaqué loolu nag ci prévention la nekk toujours ñu dugal ko testé nañ ko xañ na yëgoon ubbi vaccin nag coow lu wari la fi indi ki nga xam ne moom moo di directrice de la santé di ñu wax lan moo ko waral. man dama ne lu baax lu nekk dafay ànd ak coow moo tax bi coow li amee tamit yàlla may nañu ay experts may ñu ñun tamit dëgërlaay boo xam ne dañ koy traqué te ñu koy xaar tamit suba ay nit génnaat bu ñu génnaatee rek ñu tamit ñu def si li ñu mën. cancer nekk maladie boo xam ne mi ngi bëgg a bëri loolu fii ci Sénégal surtout ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen ñi ndax boo xoolee 53 pour cent maladie nekk fii ci Sénégal ñëpp ay jigéen lañu. aywa Fatou Bintou Konté ñu sant la gërëm la dem ca Ziguinchor waxtaane lu aju nag ci campagne beeg société civile bi sàkku rek ñu amal campagne boo xam ne dina ànd ak dal te itam moytu lépp luy fitna foofee ci diwaanu Ziguinchor mu mel ni parti ya kenn ku ne yaa nga taxaw taxawaay bala wax waa parti démocratique sénégalais ne kàddu la ñuy xaar mu jibee ci président Abdoulaye Wade benn Bokk Yaakaar na ñoom fi mu ne nii ñoo fa nekk te dañu koy fësal du sunuy kàddu Boubacar Diassi Euh, moo ci amal ab gëstu ànd ci ak ñu naan Lamine Mandiang woote yii ngir campagne électorale bu 2019 doon campagne bu dal te bu amul benn violence moo ngi wéy ca Ziguinchor. nu appelons tout le monde à la sérénité au respect et au vivre ensemble pour les candidats nous vous invitons à mettre en avant l'intérêt du Sénégal au détriment de vos intérêts personnels et partisans. ndaxte Macky Sall ki jàmm la euh, jàmm ji jàmm boobu nag lañ bëgg mu nekk continuité. carte voté la dinañu dem dugal carte bi mais fexe leen ba bu leen kenn dugal ki histoire. ci waxtu woowu cadre yi bokk ci benn bokk yaakaar di fëddali seen kóllëre candidat Macky Sall. gis nañu ni nag président Macky Sall bi mu egsee ci bopp réewu Sénégal maanaam ci juróom-ñaari at ak tey nii am na coppite lu bëri boo xam ne am na ci réew mi. tous les responsables politiques de l'APR et du Bénin, à toutes et à tous de voter Macky Sall. Farando Abdoulaye Wade yi ñoom nee ñu moom la ñuy xaar mu wax ngir ñu xam fan la ñuy voté. waaw moom la ñu xaar consigne bi ci moom la mën a jógee kenn ci ñun mënul joxe consigne de vote ku dul Abdoulaye Wade moom rek mooy suñu kilifa moom mooy PDS moom la ñu xaar moom mooy suñu frère secrétaire général national. li ni melay wone ni campagne électorale bu 2019 tàmbali na ci diiwaan bët Saalum réew mi. ca jamono Boubacar Dias si SODAV moom di fàttali parti politique yi ak coalition parti rek ne lu aju euh, ci mbiram euh, droit d'auteur ak droit voisin ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax itam euh, bu ñu amalee doxalin bu dëppowu ak yoon ay daan mën na leen caa fekk ay satu pay Thierno Laurent Mendy campagne électorale bi tàmbali na meeting politique yi nag bëri mu bëri folklore ak animation ay way yoo xamante ne ci ay wayu artiste lu jóge ñu koy exploité SODAV nag di fàttali di artu parti politique yi ñu fay seen ay redevance ndax nag faw ñu respecté li nga xamante ne mooy loi bi nga xamante ne mooy protéger artiste bi. SODAV moom moo leen boot ëmb leen muy ay artistes mu mu jël nag répertoire boobu di ko gérer mu lu ñuy wax répertoire protégé aujourd'hui il faut que quand que euh, candidat yi nga xam ne ni que duñu laaj suñu suñ suñu réew quand ñu bëgg ñu ñu war a euh, euh, taxaw temm ne que ne euh, artistes yi ci ci jur gi lañu bokk ah ci famille bi lañu bokk donc balaa nga jël œuvre artiste di ko di ko utiliser balaa ñoom sax ñu ko doon jël di ko utiliser dañu waroon ñëw SODAV fay fay fay fay redevance bi. bu ñu respecté formalité yooyu structure bi di SODAV dina dox te économie bi itam dina am lum ciy def. aada ak cosaan du rekk ay fo ak yëngatu dafay indi ci biir économie loo xam ne ni dafay participer ci développement wu Sénégal te ñoom ñi koy utiliser pendant un mois loolu ñuy indi. dina tax ba li ñuy wax salaire di wu artiste bi nekk fa moom te mu mën ci fay redevance yi mu yoreel état bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen. association de l'industrie musicale moom tamit taxaw di rafetlu initiative bi li action yooyu ànd nañ ci te lépp li nga xam ni SODAV dina ko ci dox ñun tamit ñu ngi ci ginnaaw di appuyer di fàttali rek ne candidat yépp rappel lay doon xam naa ni souvent organisation yi daf leen di ëpp doole ba yenn fànn yi dañ koy fàtte ñu rappelé la rek war nañu woote fii SODAV fay redevance bu booba nag li ñuy wax création artistique ak littéraire dinañ ko gën a appuyer ñu respecte aussi ak ak yelleefu artistes bu baax a baax. Aïssatou Paye ñu sant ko gërëm ko sant leen bu baax a baax itam ci safo bi ak kóolute bi Astou Mbène Thioub noppi na ci xabaar yi aju ci campagne bi ci wolof lay doon di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkku ci yéen desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias. jërëjëf Fatou Dieng may sa rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média ni mu ko junjee rek ci xët yi lañuy ñuy dem ci yaatal yi fekk suñu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo ñu toogal ci biir réew mi gox yeex gox goxaat yi dañu koy doore ak Habib fay Habib nag moom moo ñu toppal candidat bi di Issa di candidat bu PUR ginnaaw bi mu bàyyeekoo ci banlieue bu dakaar egg na ba Mbour daal di fay amal ñaareelu meeting am Habib yaa ngi ci ligne bi Habib Faye. Habib. allo. Habib bisimilah yaa ngi ci ligne bi. waaw Astou maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax gannaaw ba ngeen doxantoo banlieue bu Dakar mu mel ni egg ngeen diwaanu Mbour foofee la Issa Sall bu PUR di amelee ñaareelu meeting astu jàppal ne ba léegi ñu ngi accusé lii di retard ndax jamono ji ñu ngi fii ci diwaanu Rufisque ba léegi ak caravane bu Issa Sall pour jëmali fi nga xamante nit mooy ca Sindia la laataa ñuy teeree fa nga xam ne moom mooy ca Mbour ba léegi nii ñu ngi continuer ak Issa Sall dugg fi nga xamante moom mooy euh, ca Rufisque waaye tamit buñ la récapituler rek lii di journée bi pour le moment fi nga xamante ne fa lañ toll ci ñett point rek lañ ko mën a tënk euh, ci suba gi ba mu gisee xalifa Ababacar Sall waxtaan nañ ba léegi itam mi ngi xaar nee na moom am na yaakaar ne Khalifa Ababacar Sall dana ànd ak moom ci biir campagne bii le te euh, ñoom ñaar dinañ am accord goo xamante ni te dina leen permettre ñu mën a liggéey bu baax ba mu jógee foofu tamit fa mu dem rek moo di euh, ci université Cheikh Anta Diop jàkkaarloog ñii di étudiants yi ci foofee itam def na fa ay liggéey nee na dina yokk lii di bourse étudiants yi waaye tamit dina gën a yeesalaat boobu lekk bërëb gën leen yombalal seen dund ci biir euh, université le ba tax na itam keneen beneen rencontre bi mu am mooy euh, ak leader bu bés du ñàkk di sëriñ Mansour Sy Djamil mook sëriñ Mansour Sy Djamil jàppal na liggéey fasante nañ coloré jàppante nañ te te dinañ liggéey ñaari directoire campagne yi ñoom euh, ci ñett euh, ci bi fii ak ñett fan dinañ gisante loolu de la Issa Sall wax ngir rek ñu xool ana yan euh, modalité la ñuy gën a mën a tëral ngir seen ànd gën a mën a yomb astu jamono ci Habib waaw astu fu ngeen di fanaan Mbuur wala da ngeen di ñibbisi Ndakaaru mbuur lañ fas yéenee fanaan bu ñu xëyee après ñuy doog dem fa nga xamante ni moom mooy euh, Fatick Astou. jërëjëf Habib Faye Habib Faye moom moo ñu toppal candidat bi di professeur Issa Sall nekk njiitu PUR parti pour l'unité et le rassemblement geneen ku ndaw bu ñu toppal keneen candidat bu namm toog ci seesu président boobu boobule di sa Seck moom nag tey ay tukki nemmeeku la am doxantu diggante Ngoundiane Xombol euh, Lambaye Nangalma wala boo ko Séeréer ba nga Euh, maa ngi lay nuyu Astou naa la bu baax euh, Pape Fara nu ngeen yendoo waaw xanaa di dang-dangi rek di dox di dem dugg ci di wàcc ak daw yéegaat tëb jël dëkk micro ngir taataan rek ngir télévision Futurs Médias yàlla na yàlla fay coono Pape tey mu mel ne yéen a nga diggante Ngoundiane ak Xombol Lambaye daal di jàpp Bambey lu fa tukkee Euh, dafa mel ni Idriss Seck daal démb la mu gisoon Thiès xam nga nag Thiès électorat bu am solo la loolu la bëgg a dëgëral ndax nag ci loolu moom Idrissa Seck ci la dem ci euh, ki nga xam ne moom moo nekk maanaam euh, ku mag foofu ca diwaanu Thiès di Serigne Khadim Lo Gaydel dem nag daal di foofu wonem foofu taalibe ñëw sukko su jóot def li nu mel ba ñëpp nag taxaw fa xool li nu mel ñoom sax waa kër ga rafet nañ ci mbokku taale bi bu leen seet si ci noonu ñu daal di koy ñaanal euh, beneen étape ba nag xam nga fan la ñu jëm ca ba waa Ceneba nag ñoom la ñu wax ñàkkum ndox la ñu wax ñàkkum ndox daal askanoo ñoo ko wax ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci sëriñ bi sëriñ bi tamit ñëw dëggal ko di seet sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck ci noonu sax daal di koy ñaanal ne ko qualité yi lañ jiitu réew war a am warta nekk ku soxol warta nekk tamit ku foyantoo ndax ku yàlla jox li nu mel da nga war a nekk koo xam ne daal daa di taxaw te ci loolu nag moom Idriss sekk taxaw ne lépp daal loo xam ne jëm ci wàll woowu dina ko moytu moom njiitu coalition boobu def déclaration ca xombal askan wa nag la ñuy wax ne ne promesse yi leen président Macky Sall waxoon dara amu ci moom sax nee na dina ko jël ci lool sax mu indi fa humour ne ndax nan la ñu bëggee mu daan ko yenn ba ci wala mu teg ko ndànk jóge nañu foofu nag euh, dem ndàngal ma jóge ndàngal ma dem Kaba jóge foofu nag euh, dem làmbaay jamono ji ñu ngi biir reefan di continuer nag di wëy xam naa nu ñàkk ci vingt bi ñu won leen quelques images yoo xam ne mooy caravane bu mag bi nga xam ne moom def na ko coalition Idy 2019. Paa Fara. oui amul ab euh, dox bu ngeen namoon te mujjewut antu wala. waaw waaw ñoom daal euh, Kaolack la ñu waroon a dem tey ji ngir def fa meeting waaye li nu mel nag dañ ko yóbbu ba suba ndax nag daanaka fii étape yi ñu war a def yëpp jeexagul ndax fu mu président Idriss Seck gars yi dañu koy arrêté temps ba mu fay jël nag mooy bëri askan wi ñuy ñëw di ko nuyu ñuy saafontoo ñi nàngam loolu nag dafay nekk loo xam ne day xaw a suufa si tuuti ci programme ginnaaw Bambey wolof Bambey séeréer fu ngeen bëgg a fanaan tey fu ngeen di. tey nag delluwaat Thiès fanaan fa ba suba ñu daal di dem ay Gosaas ay Foundiougne ay yi mel def fa Kaolack euh, loolu la ñu fas def ni ko suba. jaajëf Pape Fara ñu ngi di rafetlu sa ànd ak télévision Futurs Médias yooyaa ñu toppal candidat Idrissa Seck keneen koo xam ne euh, toppal nañu beneen candidat mu di Ousmane Sonko suñu ndaw Ibrahima Diamé dañu koy fekk euh, ca Kaolack nangaan Ibrahima bisimilah. Euh, euh, maa ngi lay a baax. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Kaolack euh, naka Kaolack Ousmane Sonko yegg si na meeting ba door. voilà justement Ousmane Sonko moo ngi nii di doon yegg si fi nga xamante ne moom moo di terrain déggoo bu Kaolack ki nga xam ne nag war na fi amal benn meeting moo ngi nii di door a yegg nii di yegg kon ci podium bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy militants yi di koy dalal. Ousmane Sonko ñëw nag fekk mbooloo mu bëree bëri fi nga xamante ne moom mooy euh, terrain dégo donc euh, avant mu tey nag xastu euh, jëlagul benn kaddu mu ngi door ak si noonu waaye avant muy yegg si fi nga xamante ne moom mooy terrain dégo moom jot na jaar. ci euh, xalif bu Medina Baye dem rek euh, saafonteeg euh, moom saaku ñaan ak comme ni ko candidat daa yu bëri defee ak yeneen coalition yi ñoom rek donc ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy chef religieux yi bu mu fa jógee nag def na tamit caravane dugg fi nga xamante ne moom mooy biir Kaolack saafonteeg population bi wër tiim donc nuyonteeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, militant yeeg euh, askan wi waxtaan ak ñoom ci mbedd mi donc euh, astu yi mu toll ni Ousmane Sonko mu ngi noonu di installé wu fi nga xamante ne moom mooy présidium bi waaye mën nañ jàpp ne daal militant yi ñëw nañ lu bëri bëri fi nga xamante ne moom mooy terrain dégo donc xëy na astu oui. Kaolack meeting bi mooy ponk bu mujj bi wala. voilà meeting bi oui oui justement meeting bi mooy ponk bu mujj bi parce que. Euh, étape bi sax euh, dañ ko dañ ko xaw a dañ ko xaw kii parce que dañu ne woon fee lay fee lay njëkkee Kaffrine jaar Guinguinéo mais euh, Kaolack la la mujjee njëkkee fi nga xamante ne kon moom moo di Medina Baye donc def caravane door a ñëw kon boucler ci meeting bi bi muy amal ni meeting bi nag ñu ngi door a commencé nii Ousmane Sonko mu ngi door a commencé donc jëlagul benn kaddu donc ñu koy xaaraan. yaa ngi dégg en fond sonore ki nga xamante ne moom mooy moom mooy euh, moom mooy yore microphone bi donc di koy euh, installé di wax programme bi nan lay demee ak ñi war a jël parole donc euh, peut-être xëy na si rek ay simili Ousmane donc <laughs> mën nañ jàpp <laughs> mën nañ ko jàpp de parce que déjà voilà mbooloo mboolooy mbooloo mi bëri na nit ñaa ngi fii di xaar donc xëy na peut-être meeting bi dina yàgg wala du yàgg en tout cas euh, nit ñi bëri nañ kaar yi jóge nañ euh, fu ne ay euh, bus ñoo ngi fii kon donc andi mbooloo mu takko takku donc pour ñëw ñëw fekke fii li nga xamante ne moom mooy meeting coalition Ousmane Sonko donc euh, fii ci Kaolack. jërëjëf Ibrahima Diamé sant ak ngërëm ñeel na la dañuy jógee foofule ca Kaolack fekk suñu beneen ndaw mu di Disapera Disapera nag moom moo ànd ak ma Madické Niang mu di euh, candidat Madické 2019 bu fekkee Disa mu ngi ci bopp jokko bi yaakaar naa ne moom euh, Mbacke Kajoor la toll woon bi ñuy mujjee wax Disa bisimilah nuyu naa naa la. maa ngi lay fay Fatou Kine mu ngoog Fatou Kine Deme Astou Mbaye nag Fatou ñëpp benn la euh, Disa foo toll yaa ngi Mbàkke Kajoor ba tey tey seen bës nu mu lu ci tënku. ak maître Madické Niang bi nga topp boobu ba tey. jërëjëf euh, euh, ak Mbène dégg-dégg bu leerul mais jàppal ni euh, jour ñaareelu fanu campagne électorale bi coalition Madické 2019 ak candidat li ëpp lu ñu def mooy ay visite de proximité di ci di ci di ci ràññeeku nag mu ngi amee Mbacke Kajoor bu bu ñu fàttali ko teel mag màggalu Mbacke Kajoor donc mu nekkoon lu important pour moom mu ñëw jaxasoo famille bi ut ut ci ay ñaan waaye tamit seul ñi nga xam ne ñu war a engagé wu ak moom ci wàllu politique bi. Euh, donc mën nañu wax journée bi yëpp ay visite de proximité la ci famille religieuse yi génn ñu nag ginnaaw Touba ci suba si lu ci bëri sax xam nga ne taw ci Touba ci suba si mais ngoon daal après midi bi dañu gis ne activité yi ci la tàmbali beneen mbir bu nga xam ne que mën nañ ko également nemmeeku euh, ci euh, coalition deux mille ma euh, Madické 2019 mooy ci euh, mercredi yi la wax ne benn réponse bu am importance su xam ne jëlee na ko ci am waxtaan bu mu doon amal démb ak benn parti politique bu mag bu war a ko bu ko war a régional ban ak nan lay demee méthode yi xëy na dinañ euh, dara beneen question bi ñu ko laaj également ak lu jëm ci ñëw ndax moom yaakaar na ne que Abdoulaye Wade dina ko jox soutien am Madické ñaa jàpp ne que moom lépp lu ko war a wax ak Abdoulaye Wade ak PDS def na ko ci des nag mu ngi sur le xol Abdoulaye Wade ci tënk en fait euh, ak sans sans oublier euh, li def ak interview ak Mody Gueye Niang ci kanamu benn euh, biñ si benn armeer parce que ñu woon siyaare benn muqaddamu benn taalibe Sëriñ Tuubaa def ay ñaan ci moom ci tënk loolu ñu jàpp tey ci lu xew ci caravane jàmm ak xewal bu coalition Mody Gueye 2019 waaw boo léegi incha allah fu ngeen di ndekkee waaw bu ëllëgee euh, daanaka fi mu ne nii ñu dégmal yoonu war fa amal nit ñi xam naa ne bu ñu tuddee lool bu ñu jógee euh, euh, Linguère xam naa ci guddi gi ñu ngi fas yéene nag fanaan ni Ourossogui bi foofu la ñu wax xëyee suba égali suñu ay activités selon le programme mais pour nga comprendre ak téléspectateurs a que programme bi nga xam ne moom ko chamboulé euh, euh, euh, ñu toppal beneen candidat mu di Alassane Ba moom moo ñu toppal candidat Macky moom nag amal na meeting moom dafa gis ne dalal bi nga xam ne askan wi dalal nañu ko ci foofule day wane na rek ne askan woowule nee na waaw ci PSE wala boog plan Sénégal émergent nee dina def seen kéemtalaay kattan. yoon ba daal di setal gox boobule jaarale ko ci programme Promoville waaye tamit taxawal ay bërëb yoo xam ne ndongo yi wala boog étudiants yi daanu mën a dem di fa tàggatu fexe tamit ba Kébémer dellu siwaat bu baax yi am ndam ci euh, jongante njiitu réew mi ci pacc bu njëkk bi am na ci yaakaar euh, tënk gi Alassane Ba xaali jàmme ginnaaw Tiwaawoon convoi bu Macky Sall daal di def euh, ab taxaw fii ci Pire ay militant nag doon ko xaar fii biñ fi jógee jaar ngaay mexe cortège am itam ay militant dalal ko moom Macky Sall rafetlu bu baax seen engagement mu def fi itam ay dige nee na buñ ko falaatee dina dimbale soxna yi ñu fexe nag ba seen liggéey bi gën a ñoŋ jébbal leen ay financement buñ ci jógee nag nee na xëyum ndaw ñi itam nekk na priorité ginnaaw étape yi convoi bu majorité présidentielle dikk fii ci Kébémer ñu fiy amal ab meeting. li mu def ci réew mi kenn mënut toog di ko lim li mu fi def ci juróom ñaari at ku koy jéem a lim dangay sonn il a servi tout le monde c'est le temps de le reconduire. li nga xam ni moo leen war a mobiliser yéen waa Kébémer yéen waa Sénégal yi ñuy déglu. mooy que sa kii toog ci suñu ginnaaw c'est le candidat de la stabilité. ñun waa Kër Serigne Touba ginnaaw autoroute Ila Touba desee la too ñu dara li ñu war mooy ñu jàppale la tee la ba nga amaat deuxième mandat et dès le premier tour. Macky Sall jàpp confiance gëm ne itam fii ci Kébémer daanaka jël na ndam li ba pare. ku wax dëgg ku ne waxuma nag ñuy lépp. ak di nax seen bopp jàpp ne ay réseaux sociaux ak i sos ak wax lu dul dëgg mën na tax nga yor réew waxuma ñooñu waaye kuy citoyen di xool njëriñu askan bi di xool avancement Sénégal tey ci domaine yépp nag di nga xam ne le Sénégal sous le président Macky Sall est un pays en avant. ay projet yu bëri itam nee na dina ko jagleel Kébémer. li may wax fii ci département de Kébémer. dafa nekkul lu ñuy laam-laame wala di làmbatu dafay programme bu ñu tënk bind ko am alal ji ko war liggéey kon li des mooy le 24 février dès le premier tour le département de Kébémer soit parmi les départements qui vont réélire le président de la République. ku tudd Kébémer tudd itam njiit réew bu woon maître Abdoulaye Wade moom candidat sortant bi di Macky Sall jot na ko nuyu sax. au passage. Mais Kébémer, chers amis, c'est également la ville du président Maître Abdoulaye Wade, que je salue depuis sa ville natale. jërëjëf Al Assane Ba bu bàyyeekoo Kébémer njiitu réew mi ñu ngi koy xaar wala boog candidat Macky Sall ñu ngi koy xaar ca Ndar Géej egg naak eggagul meeting ba door naak doorul dinañ ci am lu ñu leex ci yeneen jotaayu xibaar juróom-ñetti waxtu Sara Cissé dellu si fi toog juróom-ñetti waxtu bu tegalee fanweeri simili ma dellu siwaat ci xibaar yi ci français ba tey ci jongante election njiitu réew mi.